bi ñu toogee gis naa koo xam ne dafa dafa estati loolu hmm. DG boo koy estati hmm. ñibbi ñiibi waaw ñiibi mu estati ko muy wane ni waa Sénégal dañuy ñibbi si mooy ñibbi daal ñiibi hmm. donc c'est important dañuy dem euh, tout rapidement euh, rapidement ci li nga xam ne mooy beneen sujet bi waxtaane ko muy euh, ba tey rek ci sujet wu internet ak dérive yi muy def yàq ay nit waxal nangam sangam Mame Ndiaye Savon jaaykatu saabu bu mag bi ci réew mi man nag dama ko bëgg personnellement dama ko bëgg ndax li mu bëgg sëñ Fallou. waa dama ko bëgg ngir li mu bëgg sëñ Fallou. dama ko bëgg ngir li mu am jom. am fulla am fayda. nekk ci liggéeyam. bi yoon nag dafa wax lu am solo lu ñëpp war a bàyyi xel maam Ndiaye Bada dafa génn dal ci kawam. romb ko fi moom dem ci jëkkër ja <laughs> xam nga loolu nag rafetul nag. Pape Ousmane. dem ci jëkkëru maanaam dem ci jëkkëru maam Ndiaye maam Ndiaye nag bi mu génnee li mu wax lu leer la. man yàq leen ma musiba. nangu naa parce que maa opté génn ci kanamu caméra yi. maa opté nekk siiw waaye sama jëkkër. keccet leen ko ci ndax moom siiwul génn. ndeysaan ndeysaan. te nee na bi may takk. aw ma munuma te moom amoon na. ci yax bu rëy la bokk. yaayam borom lamb waaw. bu ko neexoon mu romb mu seeti moroomam waaye daf maa takk dimbali ma ba ma mel nii. ndeysaan wax jooju am na solo léegi nag nee na bu lu waay di wax naka ko wax mhm. te ngeen bàyyi jëkkëram ji lu tax Pape Ousmane réew mii may gis ñoo xam ne man damaa jàpp ne dafa am lu nekk seen bopp yi ak as tuut as toq ndof daal nekk na ci ñoom nañ ma baal mhm. kii jëkkëram génnul waxul ah. moom moo génn mooy wax moom souvent nit ñi dañ koy traité façon wax dina dañ ko xamee du tontu mais mu gisoo ko tontu nag ci mel ni ndax liñ ko def moo ko metti ak itam di ko sikkal ci kasu rajabam baak am na ñu fa teew ay borom ñaari tuur lañ ñoo xam ne yow leeru la ni ñii ay borom ñaari tuur lañ nga leen di tuumaal en plus mel ni yow mi leen di wax yaa leen gën wala yaa leen raw wala yaa leen ëpp daraja ci yàlla Pape Ousmane yu mel nii pratique yi mu ngi bëgg a yàgg ci réew mi te baaxul na. waa mais ñoom seen genre yi nii comme ay ñoom Mame Ndiaye jigéen ñi nga xamante ni souvent dañu exposer seen bopp. Mm-hmm. di def seen ay liggéey ba nit ñi xam leen dafa am ñoo xamante ni des fois da nga naan dañoo am bayre bukki bayre bukki boobu moo leen sonal bayre bukki nag xam nga bukki moom fu mu jaar rek nit ñi dañ koy topp di ka mbamb di wax di wax di wax te Maam Ndiaye man dama jàpp ni genre nit boobu la euh, moom rek nag lañ daan dégg ñuy wax ci ay mbiram naan maam Ndiaye maam Ndiaye maam Ndiaye maam Ndiaye maam Ndiaye. Mhm. tey bu ñu demee nag ba jël boroom këram tey bëgg ko ci boole sa commence à faire trop. mi ngi commencé ëpp te c'est normal que mu dànkaafu nit ñi. Euh, pour man sama jëkkër bàyyi leen ko nga xamante ni man ba ma nekkut dara moo moom moom moo ma jàppale woon dama jëkkër bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko ci biir bu leen dugg ci ay mbiram te la parfaitement raison mm-hmm. parce que loolu c'est sa vie privée xam nga nit ku ne danga am vie privée mm-hmm. ku nekk am nga loo xamante ni bëggoo ñu ñu waxal la ko ku nekk am nga loo xamante ni bëggoo ñu xamal la ko mm-hmm. te jëkkër ak jabar dafa jegeyoo benn façon jegewaay boo xamante ni moom maam Njaay ci savon mi la mu cay def ak la mu cay wax ku ko waxal na xa waxal ci loolu. parce que moom. bañ na ko ba maam Ndiaye savon. léegi nag autour du savon. lépp loo xamante ni bokk na ci. tam hmm. ci ay mbiru savon am. Hmm. nañ ko ci waxal. parce que moom dafa exposé wu jëmale ci boppam savon. te yem ca xam nga man yàlla def na keroog dama doon tour am ku ma doon tournel comme li ma doon wax ak Idaali am ku ma doon tournel ñëw foofu mu ma fii la dëkk. fii la def dépôt kër gii mi nekk nii. Pikine côté euh, nu mu tuddati waaye côté Dominique. ma ñëw mu ma ne ko ah mi ngi fi mënu ma noo neew fi. mais day dem fii tey tey mu ñëw mais fii lay dem ci ay ay kii yooyu yëpp ma ne ko ah bon mun ma ma ne ko kooku de man waroon naa ko gis. waaw après femme bi ne ma li tax ma ne ko non parce que man wax dëgg yàlla miinante wuñu ma suñu janoo nii mu échange ma échange mais man Bilia damaa bëgg jigéen bu mën mën a liggéey. Hmm. Bilia man lan moo tax yow nga neex ma su ma lay xool sama xol day sedd. ba may am ay plaisir yu may yëg booy wax damay sentir ni man damay kontaan parce que da bëgg liggéey. nit bu bëggee daan dooleem man daf may neex am na tey jigéen yu tol ni yow am âge bi nga am mel ni nga mel heure bii ñu ngi ñu ngi koy joxe faneen pour am. waaw non c'est vrai. di def nii rek. waaw ñu ngi koy joxe faneen pour am. am na tey ñiy taxaw ci buntu Auchan yi di taxaw ci buntu grande surface yi brioche doole yi di koj nit ñi. xam nga reeraguma. doo si jàpp ma reer ñooñu dañuy ñaan reer plus. soo mayee reer bu la neexee nga dem reer reeraat. c'est triste quand même parce que am na fi. bëri na fi. Mhm. Auchan bi woon sama koñ dañ fa bëri woon lool am na ay mag am na ay xale bu la neexee nga mayee dem mais bu la intéressé am nu muy demee du ma ni ñëpp de am na nu muy demee nga reer reeraat parce que loolu prostitution déguisée la. Mhm. mu bëri mais tey moom mi ngi créer ay savon am. waay mi ngi jaay ay saaboom. ay employé saabu yaa ngi may xaalis. Ah. mi ngi jàppale ay doomu aadama. mi ngi jàppale boppam. mi ngi jàppale borom këram. mi ngi jàppale ñi ko yaakaar. loolu nag boo amee ci àdduna tey jii yow li ñu lay def dañ la war a encourager. mais bi la Sénégal ngay gis nit di dem. Mm. nit di dem ñu lay tegal ay ay ay ndëgg sërëx. ay barrage yu ñu ko avancé. wallaahi xool ka ñu wax mu ne ay bla bla la nekk TV xool ko ak musóoram bi kii ni ma ko bañee kii ni ma pour mm. pourquoi nit ki da nga war a gis muy avancé nga koy ñaanal mm-hmm. man de xaw ma maam Ndiaye Savon musuma ko gis. musuma ne aloo mu ne allo mus ñu tegoo loxo ku ko jege sax xaw ma ko mais internet ak ak TikTok ku ci dem di nga xam kii jëmm ji Mame Ndiaye Savon yenn saa yi ma yem ci laay fam ma toog seetaan pour xool mooy kan mhm. mais tey gis naa ay yeneen Mame Ndiaye Savon yu bëri. waaw ah, yu bari moo leen créé ah. yu bari yoo xamante ni tey TikTok la ñuy def. xam naa sama jarbaan moo ma doon woo léegi léegi guddi gu jot mi ngi teg ay fëgg jaay lay teg. waa bii nag. waaw léegi cag-cag bi mi la koy indil teg ma ne ko dinaa jaay plus de cinquante mille par guddi. système maam Ndiaye mi ngi may seetaan nii nii nii instant bi waaw mi ngi may seetaan léegi woo ma ma ne ko pareeguñu mun ma kon direct la ma ne ko waaw mu ne ma kon bàyyil ma continuer seetaan mi ngi may dégg li may wax te loolu tey jii bu demee ba am see grâce à maam Ndiaye. maam Ndiaye nag daa am borom këram. Mhm. bëgg loolu borom këram ñiy sey mhm. ñoom ñaar teedeel na ko ay baat man loolu dégguma ko fenn. mais à travers Aline li mu wax ak li nga wax ci laa sukkandiku rek mën ko kii mhm. nañ ko bàyyi ak ci këram buñ koy attaqué nañ ko mhm. attaqué ci liggéeyam attaqué ko ci xaritam yooyu nga xamante ne souvent ñoom ñooy génn di exposé seen bopp mais nëbb na jëkkëram bëggul jëkkëram kenn gis ko mhm. nañ ko bàyyi ak jëkkëram Youssou Ndour moo gën a siw fii est-ce que mës nga gis Youssou Ndour exposé jabaram ah danaa nëbb Mamy Camara ah waali bii nga gis nii bu dul ay soirée est-ce que du loolu rek mooy tax na ngay gis soxnaam si soxna ay mais bu dul loolu mi ngi kër ga toog di sëy parce que sëy la sëyal jëkkëram moo ko takk li maam Ndiaye di def maam Ndiaye moo koy def ñoom ñaar bu ñu weetee nekk seen kër maam Ndiaye buy sëy la ak borom këram. Mhm. loolu concerné wul Jean concerné wul Paul damay ñaan gars yi ngir yàlla nañ ko ñaanal yàlla ci sëyam bi. Mhm. sëyam bi nekk sëy bu barkeel. Mhm. parce que am na ñoo xamante ni yër génn lañuy def dañuy yër rek génn. léegi nag bu ñuy yër génn du ñu bëgg kenn di ñëw dañuy sëy si seet si seetu si. te kuy ñëw di sëy si da ngay ñëw pour sëy ku ñëw di seet si da ngay am looy xool rek boo ko gisee nga dem ku ñëw di seetu si nag da ngay xool yow ba ngay ñëw dangaa ngaa ràggoon ndax boo fi defee ñaari at wala ñaari weer di nga am yaram wala dinga gën a xees wala di nga wala kër gi dina yokku boo demee gisoo yooyu nga tàppe nga nga tàppaas sëy ba tas mu jeex looloo fi bëri boo fi nekkee nag di jigéen di liggéey di daan sa doole lu ne di ko dégg mais conseil bi may wax dafa ko jox ci maam Ndiaye joxaale ko Bilia joxaale ko bépp xale bu ndaw buy jigéen mm-hmm. senegal dafa nekk dëkk bu mettee tekki fii ku fi bëgg tekki Youssou Ndour baat boobu mu wax di nga léwatoo ba tas te làmb ji benn mbër yooyootu fi da ngay yox-yoxi ñu xar fa fuuf la ni la fuuf te sa dëj bu jotee ñooy ñëw taxaw di jooy fekk ñoo la fuufloo. Mm-hmm. kon nag na yi di moytu bu baax di xàmmee. muy la am solo euh, très rapidement Bilia ban gis-gis nga am ci sortie bu Mame Ndiaye euh, Savon bi jëm ci jëkkëram ji ñu boole nag léegi ci xas yi ñu koy xas yu ñàkk fayda yi nga xam ne daal du yëfi góor daal ngeen baal ma yéen góor ñu koy def. <laughs> man Alioune fi ma bëgg ñu njëkk waxtaane mooy première état bi mooy kan moo def lool. muy sëñ Bada. sëñ Bada nan lañ ko xamee woon. ah moo ko tooñ. moo ko. sëñ Bada moo moo moo dal ci kaw maam Ndiaye bu mu génn nii. moo tax mu ne ko. sëñ Bada booy wax waxal ci maam Ndiaye. ah damay laaj sëñ Bada la wala ah, kan. sëñ Bada la. ah booy xasal maam Ndiaye mais bàyyil sama jëkkër. te nga ni Bada rek. mais gis nga sëñ Bada. commencement bi doon tagg maam Ndiaye dem nañ ba ne maam Ndiaye Savon day fañ day fay gii di sëñ Bada pour sëñ Bada di ko mën a di défendre. te tey jii ni moom nee na moom moom da daan toog naa maam Ndiaye fayu ko moom moo bëgg maam Ndiaye sabon moom ku daan génn ku daan génn di attaqué maam Ndiaye Savon sëñ Bada da lay laay fal. Hmm? sëñ Bada toog na di live TikTok ne lakkos bi ma sol jëkkëru maam Ndiaye sabon moo ma ko may kon donc. ana colère Pa Ousmane koo mës ta lekk cent franc sax cent franc am da ngeen sekk jàmm sax waroo toon waroo génn sëñ moom la ñu moo maa ramas dem naa ba kër maam Ndiaye ñu ramas ma wala du moom man xaw ma gars yi koo koy sëñ Bada. xam nga ne lay ngeen bëgg a def toog bi nag di ma dugal. waaye nag man moom man moom fatarkaal la moom man Bilia moom lu may wax ñu ne rek dama moo koy teg ñoo gën a xam li xew mais yàlla baax na yàlla baax na sëñ ah, Bada de moom sëñ Bada moom day tontu mais wax daal loolu loo xamante lu leer la lu dëgg mais dama ne sëñ Bada fi mu toll fi mu meloon nag maam yaay Savon waroon na xool diggante boobu kóllëre dafa am man Bilia du ma tagg Pa Ousmane ba mu neex ma ma xëy di ko xarab <laughs> loolu bu yàggee kenn du ko lii bu yàggee kenn dootu ko ñeme Mame Ndiaye Savon nag moo opté lii di internet opté lii di réseaux sociaux yi ah. gis na Pape ku wax doon sa sa sa sa sa arme hmm. boo noppee dootoo xeexat Mame Ndiaye Savon li ñu ko xamee mooy communication mooy wax Mame Ndiaye Savon moo tax ñu bëri ñeme di live di jaay ngay jaay fëgg jaayoo ngay jaay saagoo ah, ngay jaay ah, dàll ngay jaay ak lu mënti doon xeesalkat yi mooy mooy ñi jaay diwu xeesal Mame Ndiaye Savon moo tax ñu ñeme ba guerre bi di am tey maam jaay maam jaay tax na ñu bëri seeni produit di jar day day wax ba di waxaale ñi jaay pour teint noir xëy na moom dundam nii la moom day wax mais li gën a neex mooy ma mooy mooy man ci xotam bi may xool mooy jàmbaar bi mu doon fi mu commencé tabaski sax daka daan xañ boppam ndax lan pour di jaay nekk ci tali yi maanaam jàmbaar la fi jaar jaar jaar bu metti non jaar jaar la jaar jaar bu metti am na keneen ku dekk Mbuur nag ku tudd Mia waaw jaar jaar bu métti la moom it si yooyu lay yëngu de. si yooyu lay yëngu mais jaar jaar bu métti la. gis nga passement dañuy valoriser suñu jigéen ñi. tey jigéen yoo dafa commencé cent franc dem ba yor million am si satisfaction mais bu ci am benn xolu ki ñaan bu lay dugg. Ah. wala bu naan kii day puuk réew. tey ki am million am jënd otoom di ci dawal dinaa am naa oto yii am naa oto am naa kër. fii ko am oto wala am kër bu la neexee wanewu ah. am na ñoo xam ñu ngeen ne pat ak moom nag wane wanewuñ xëy na moom ci lim nekk mooy internet mooy réseaux sociaux day fësal lépp billaahi moom léppam mbirum internet la mais mbirum sëy moo doon loo xamante ne c'est confidence privé privé la jëkkëram jëkkëram la xëy na bu ko génnee vidéo sax am na droit bi jëkkëram la am na droit montré ko mais lii di vie am ñuy topp naan dafa tas dafa tas dafa tas lan lañ yéene pour jàmbur mu tas nit sénégalais sax nit danaan tas sax mu fëgg noppam ndax du ko ko yéenee mais hmm. léegi dañuy toog sax bu ñu gisatul nit nga statut ci sa jëkkër sax ñu ne tas na sëy ba hmm. nekkatu si sëy ba dem nañ ba léegi dañoo banaliser sëy ne moom mi ci si sëyam nee na jëkkëram fi ñu jaar yaayam borom lam bu diis la bu ko neexoon xool si xale yi jigéen ñi am xaalis mais dafa ñëw fekk dëkk boo xamante ne ka ca gën a mu takk ko ñoom naa nag ñu cheminer ñoom ñaar ñu jàppandoo ndeysaan di buy di Dakar ba niñ oh. toll nii oh. buñ demee ba tollu fii ak problème buñ mënti am ñu am ko ñu ñàkk koo am yoon sénégalais neewu ci mais tey kii di sëñ Bada li mu def nii tax na man de ku may xa ku may tagg tey suba nga xaram ma man de biliyaa nag bu may lim samay noonu ci yow laay ah, njëkkal la mu ngi noonu muy la am solo ah. donc ci euh, Mame Ndiaye moom comme li ma wax rek damay réitéré loolu man nag dama ko naw lool bëgg ko lool ndax li mu bëgg sëñ Fallou benn ñaar ak li mu am li mu am li mu am fulla ak jomi jomi di liggéey parce que jigéen boo amee jom ak fullay liggéey rek mm. baax na ñi ci des bàyyi leen ñoo ko te te ndeysaan nit ku kii la ku free la dama gis ne ku free la waaw free moo tax mu mu neex ma daal nee na li muy social koy tudd bu ñuy tudd moom ay wax bi mu nekk ah, ñi muy jàppal day def social day def social ah kon nag dama naan ko maam Ndiaye sëñ Fallou Mbacke awo bu soobaara mi ci kàddu gi bas Fati moo di maamoon mooy dana <laughs> xeexi neen maam Ndiaye ah maam Ndiaye bàkki nu mbër a gën a wóor bu suru bëre làmmi lislaam sa maama ko fàkk goon ñu sukk di raam maam Ndiaye sa yaa bëgg sëñ Fallou boo sëñ Fallou ci gaaw booy jaay Fallou ci gaaw na dañ koy takk ci sëñ Fallou xam nga damaa bëgg sëñ Fallou barki démb maa ngi woon Kazu Rajab bi waaw ma mel ci sëñ Fallou aw ma ci aw ma ci kii ba ma demee ba ba ba ba dugg damaa toog sama xel ne ci yow ne ci alin ne ci équipe bi yépp barki sëñ Fallou mbake ma fasale leen jumaa ja maa ngi fa toog onze heures ci suba ba ba julli timis laa fa jóge dem kër sëñ Cheikh